de Kéba Mbaye venir aujourd'hui contester une rédaction qui n'est qu'une répétition, une reprise des dispositions de 92. Chers collègues députés, au-delà de cet hémicycle, nous nous adressons au Sénégalais. Et la vertu première, c'est de dire au non-sachants ce que nous savons en nous appuyant sur des documents scientifiques. J'ai été étonné hier d'entendre des professeurs de droit, des juristes, des analystes politiques dire que cet article-là ont été insérés pour la première fois dans le code de 2017. C'est extrêmement grave. Autre élément, il n'y a guère, On disait que le gouvernement est en train de s'organiser pour jumeler ou coupler les élections locales et les élections législatives. Aujourd'hui, admettons tous, disons aux Sénégalais, que les élections locales se passeront en janvier 2022 et les élections législatives plus tard. Et dans cet intervalle, les points de non-accord qui n'impactent pas les élections locales, qui appellent l'arbitrage président de la République, ce code qui n'est pas humiliable, qui certainement subira d'autres modifications pour intégrer l'arbitrage du président de la République. Sous quelle forme va se faire Peut-être que président de la République va appeler les partis politiques et Alors, je vous le dis, je vous le répète, ce projet de loi, l'ADN du code électoral au Sénégal, c'est le code de 92. Plus de 90% des articles du code électoral sont des dispositions du code de 92. Le président Macky Sall a fait une concession majeure aux députés. On a supprimé toute la partie réglementaire du code électoral. Alors, m'adressant aux intellectuels, faisons la recension des textes. Qu'est-ce à dire recension des textes Comparer textes anciens et textes nouveaux. Et nous verrons si les dispositions sont marquées par le sceau du progrès, la transparence et de l'ouverture. De quel meilleur chef de gouvernement peut-on s'éclamer quand on a un président qui laisse le soin aux acteurs du dialogue de lui proposer les textes ont été externalisés Nous avons de brillants experts ici derrière les ministres. Aucun d'entre naar n'a rédigé un article de ce projet. que voulez-vous d'autre wax leen nag Sénégalais yi nag dama ne coow lu yëpp jaru ko su fekkee ne dañu bugg a ku ñu tëj kaso nga continuer voter nañu modifier code pénal na modifier code de procédure pénale le code électoral tire les conséquences des condamnations prononcées en amont par les tribunaux ordinaires les chambres criminelles et même les tribunaux commerciaux. Rappelez-vous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, que même le commerçant failli perd ses droits civiques et ses droits politiques. Alors, si maintenant vous voulez que des détenus votent, si vous voulez que des criminels votent, si vous voulez que les autres détournements votent, mais allez modifier le code pénal. On ne peut pas légiférer pour une personne. On ne peut pas légiférer pour deux trois personnes. La loi, et c'est un principe de base élémentaire que l'on n'apprend même pas aux étudiants mais aux capacitaires. La loi est générale, impersonnelle et intemporelle. alors li may wax daal mooy jërëjëf. maa ngi tàmbali samay kàddu sant yàlla gërëm see Ahmadou Bamba sant Serigne Touba ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér. monsieur le président tey bu ma déggee sama naatangoo bii wàcc wax li mu wax. sama yaram dafay daw te damay tiit ndax koo xam ne nga ndékkandoog Senghor añandoog Abdou Diouf reerandoog Ablaye Wade bëgg ñëw lekk ndékkil Macky Sall lii lu neex nga ngay mën a wax jàpp naa ni réew mu normal situation bu normal ñu jëm ci wax askan wi ngay wax loo xam wér na ni yow bi fi Ablaye nekki daw woo ko wax kooku mooy ñàkk ngor ñàkk dignité ñàkk diine ñàkk islam moo war waral loolu ñun ay gor lan sama baat ci kaw jamonoy Ablaye Wade musuma bokk ci nguuram waaye tey bokk naa ñu ko ëpp di mu ko défendre parce que li mu fi nekk woon lu baax la dëgg la lu jub la la code mbay Mbaye code 92 la ku ne xam na ni code boobu ñëpp dañ ko wote ay unanimité amul woon débat parce que parce que ñëpp si jubóo woon la code 92 amul woon benn yoon boo xamante ni indi nan L29 L30 parce que li si nekkoon mooy boobu condamnation bi nga xamante ni moom lañ doon wax détournement illicite amu si woon mooy CRI yi li nga xam mooy condamnation CRI yi amu ci woon booba lu tax ñu jël ko dugal ko si euh, euh, L29 bi te boo jëlee li nga xamante ni mooy monsieur le ministre projet de bi ñu indil man pour man dafa nekk projet boo xamante ni heure bu yàlla sàkk lépp loo xamante ne bokk na si li éliminé ay candidat ci république du Sénégal yow la ko Macky saali sant yaa ko defoon Khalifa Sall def ko Karim Wade def ko Abdoul mbay tey yaa ngi jëm si Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak Bamba Fall ak ñun ñi nga xamante ni ci ay sources lan parce que ñun bu ñu génnee sax ñu kon na ay sources si lu ñu bëgg lu def dara ñu boole ñu si kon yaakaar naa code boobu kenn mënu si ànd parce que kenn mënu si ànd mooy boo jëlee article L 230 L 265. le code bi nga xamante ni mooy code collectivité territoriale dafa interdit li nga xamante ni tey jii mooy li am ndax man bu fekkente ni tey da nga jël code bi nga xam mooy code 42 et le article 42 1992 ak li nga xamante ni tey moo nekk L euh, article L 230 ak L 265 mais ñaari loi ñaari projet loi nan la ñu mën a nekk en contradictoire mooy tey jii loi bi nga indi dafa wax ni. ñu ngi wot maanaam maire ak conseil département suffrage universel boo jëlee li nga xamante ne mooy code électoral dafa wax ni léegi ki nga xam mooy maire ak candidat conseil départemental ci article 42 92 dafay wax ne léegi maire ak conseil département conseil ñoo koy mën a wote man dama jàpp ne waroon indi bala ngeen indi procès bii pour ñu war koo jàlle da ngeen waroon a maanaam abrogé procès bu njëkk bi mais ñaari procès de loi yoo xamante ni ñoom la ñuy woteendoo ñu mën a doxandoo ci république Sénégal république normale loolu jaaruwut loolu maanaam cuune la mbirum cuune la yëfi cuune la te tey jii monsieur le ministre ku ne xam dañoo ratifié ay convention internationale tey boo jëlee les convention droit universel droits de l'homme article 21 le 10 décembre 1948 dafay interdit li nga xamante ni tey moo nekk suñu code électoral L29 L30 jàpp naa ni il faut que le président de la République waxoon man mii di wax ak yow bokkoon na si dialogue bi mais lépp lu ñu fa waxoon tey si dialogue bi am na si ay points yu bëree bëri yoo xamante ni dañ ko dindi indiwuñ ko si ndax dañoo waxoon lépp loo xam jubawuñ si nañ si waxtaan mais lan moo tax ngeen yàkkamti indi ñu maanaam code électoral boo xamante ni dafay salfaañe ak ak yelleef doomu aadama yi ba pare ñaareel bi di xañ ay nit ay droits civiques ak civils mais code pénal d' accord nan ñoo ko wate ensemble national def code procédure pénale modification mais bu fekkente ni code pénal dafay wax condamné wu nit ki si droit civique ak civil am tey jii code électoral bi ñëw bëgg a condamné nit ki si droit civique ak civil am yaakaar naa am na ñaar yoo xamante ni war ni ko est-ce que Karim Wade ma xañ ko droit civique ak civil am mais sis bi dafa lànk léegi comme sis bi dafa lànkoon ni du nga xañ droit civique ak civil am ndax CREI yi maanaam d'accord si loolu tey jii nga ñëw bëgg ko xañ droit civique ak civil am dugal ko si article L29 bi ak L30 bi dindi ko si L31 L32 loolu dama jàpp ni yéenuwul maanaam gis nga réew mi il faut que ñu waxtaane ko li Macky Sall bëgg a def mooy cañ cañ cañ facaacaa il faut mu facaacaa ak mbir yi pour que man ñu mën ko daane bëgg éliminer ko d'accord tey